حسن الإله yaakaar ak ay mag ak ndaw ak koo fi gis dun yaa ngi koy nége bis sëriñ bay jaxate nee na day dox di mbas ak a tas yaakaar ak ay waru nit mag ak ndaw ak koo fi gis dun yaa ngi koy nége bis duniyaa soxal na ku nekk sox bu rëy di ko nekk te sox bu tàkk ba ñuy rët muy soxal ña fa des soxam bi képp ku am ak ruu mu ci sa kaw ku dul ka bind aras day mujj xëy ne melas sëriñ bay jaxate nee na xamal ne yàlla ka bindan rekk a fi xala des nde picc sax du fu des nan dëddu àdduna mbas koo xam ne kii boo ko jubloo it mu dëddu la yow moo tee nga koo jëkk far ci dëddu ndaxte murus sëriñ bay jaxate nee na as ndaw bu lay woo nax ngir bëgg a lekk sa yëf bañal te daw ne ko ay xam naa lu bon li nga fas àdduna as ndaw la suy nax wépp far wu ko nopp te wépp far wu ko nopp doo jël te doo dese tus muslul naxam yi te nax koo nax ba def ko canuk firdaw si yow kon nga jaay ak xott jënde wurus firdaw si nag moo di ndaw soo xam ne sii du la nax te ndaw su taaroo ne moom it bët gisul ku ko gis sëñ bay jaxat ne na as ndaw la soo xam ne sii giñ naa ne soo ko jëlee am yëf yu gën yi ñu am mos ñam yu gën yi ñu mos sëriñ bay Jaxate nee na xamal ne firdawsi moo gën fopp àdduna ngir si kenn du fa jóg àdduna kenn du fu des moo tax sëñ bay Jaxate ne àdduna yow waxal ak say far yu dof yi la nopp xamal ne man mile firdawsi di ndaw sama nopp mboolem ku lay nopp xamul bon bon yi làqu ci yow ku xam sa bon bon yi dal lay def ni mbir mu nëpp koo mas ne yëkkat mu jëm kaw yaa ko sànni mu rot koo mas na jàpp sa yëf yi yaa ko xëy ne këlëb yàlla alag na la ak mboolem ku lay mayi gët sa lor ji yàlla na nu mooy faw ak li ngay safu rab man dëddu naa la njegam yow mii dangaa bëgg kaf demal kaf ak gaa ya lay woo koy kolaas ak a dab sëñ bay jaxat ne na ko xam naa ne yow koo diggee lit faaw mujj ko wor moo tax ma far jëkk laa wor soye boo nga xarab xaaroona wor nga ko wor fir aw na ak ña ko ëw koo gis mu ngëb la xamut lëf yow ko xam du la ngëb reeloo nga merloo nga bégloo jàqaloo toroxal teral bonal woyefal diisal sa ndab li du ndab ku def ci yow ay yëfam moo sànq dëgg yëfam ngir ndab nga luy senn kay tuuroo ko dëng ko jub koo xam ne kii mas nga ko fat yaa ko génne falang giñ naa ci yàlla na yow mi am la tax ci la xab maxaaki dammeel ak i sàngoo na ñépp nga wor yaa génne alburi it muy dox ba dee fi barab yow yaa di tooke ku fab dee kuy mosit ne kayam te moo ne téewul ba tey dof yaa ngi mos ak a fab ku repp rekk la fiy fab moo la fiy mos itam ku bëgg xam garabu lor dëddu laa di garab sëriñ bay jaxate nee na lay dóor a kiy reen a kiy xob yépp ko dana faj lëf waande lay dëgg dëddoo jiitu reen xob ngir dëddu day faj yaram faj xol mu wér ne peleng mu dàkku nag sawaraak ay lor yu ñu sib sëriñ bay jaxat ne na dëddul ku dëdd lu dee faa bëgg koy wuti faf ab lar bu dëddoo mébét yaa koy dabee ka xaleb sëriñ bay jaxate nee na ab surga waxtu dëddoo ab añ te jublu mbayam day geesu fekk ñu taajal ko añam ci garab ku dëddu mbay nag te jublub añ di laaje ka wut day tax añam ba bu sottee ñu far ko xuub sëriñ bi may nu nu dëddu mooy te jublu ndigal ba làq say ngërëm ak firdaw si ndaw si nu nopp moo tax sëriñ bay jaxate mu ne rusal ne ñokket ngirub añ jëm ci benn barab farlul ci mbay mi ki lay bayloo ngi wuufi añam boo sellalee mbay mi say añ wër la këpp ku yiw nit ñépp ñëw wër la ngay ñam leeka sant ñam ku sëpp goppam ba fee nag dem ne xottu fa ñuy laaxee ka yekkee ka wootee gàcce lay xala ñam sëriñ bay jaxate nee na kuy rëbb day fañu nit tey ñëbbu ñépp bëñam ba jam rabam ba ko saf ñuy door a seeru bëñam sëriñ Mbay Jaxate nee na koo xam ne kii jamagul nit ñépp a koy man a muñ la gën mu muñ képp nit teg bët ki nit di mbañam bu ñépp nee doomi diw jaag diw fetal na ba jam nit ñépp fëx jëm ca dootul xam ña dooni bañam yàllaa ngi fépp te moo yor añ yi foo baye añ bayal ko bañle ko bépp yéefar ak njariñam bayal ko foo toll biir ak bitti mbay mu rafet mu jox la fa añ bu tax doo ngaa nawub sëriñ sëriñ bay jaxat nee na kuy bëgg a añ ba ne xërroo sas di wéy bu ko roy lu wéy wéyit ñàkk ndam am gàcce récc nu cem ka saytu añ yépp am leenug juboo gu rafet seenug juboo bu wéree añ ñëw ñu wumbi weñam moo mën ne cas wépp yiw jébbal nu yal na ko def wubbil nu yaatal nu wuufal nu tonooki añam sëriñ bay jaxat nee na añ yaa ngi sas yaa ngi kuy wut añ te wàccu sasam du tax mu am ko ku bëggub añ na songu sasam ku wàccu sas dem di foo koy kun kunuy fexe añ sasam wa yàqu mu ñàkkub añ te ñàkkati ndam sëñ bay jaxate nee na bul songu añ wàcc saw sas ku songu añ wàcc saw sas ñàkk añ ak ndam bul song añ wacc saw sas loolu kat du ngërëm farlul ci saw sas ñu yët la añ bu sedd sa xol boo dul wutee ko fexee kay jëm fu nekk ka dem sëñ bay jaxate nee na defar sa sas wee la war boo koy defar ñu ne cas loo bëgg lépp balaa saw ñaq ne la am sas wee di jébbale say biir faw ak sa alal ne nem mu mel ne ku dee far dëgg bay ko tam gëm boo itte wootut lu dul bay sas wi léegi nga gis ndimbal yu tukkee ci gépp wett ànd ak ndam ku waccu sas kuy bëgg añ ba ne xërroo sas di wéy bu ko roy lu wéy wéyit ñàkk ndam am gàcce réccu na cam sëriñ ndam mbay jaxat nee na soññeb añ ak geesu ab añ ak tawat yu ne xus du faj lu dul yeexalub añ rek lii ma ta xam kuy togg sab añ nga far koy soñña kay sañaxal ba tax mu fàtte la muy def gépp ndof ci la yem sëriñ bay jaxate nee na sëriñ bi yàlla na nu may kàttan ci def lu ko saf te sax ci nag sunu diiru dund sax ci mbégam man maa ngi sàkku ci barkeem ak kuréel yi ko gëm raw mucc jël ndam la guddu fan te sedd xolam te yàlla na jox jëpp waayam te yàlla na may jëpp waayam may gu sedd xolam te jox ku nekk lu muy mos nag ba songu sasam sëriñ bay jaxate nee na bu cër yëpp gàntoo defus lëf jafe defus lëf bu yombul amus lëf jafe jógal farlu ngir yaa ngi cib lolli yow te ab lolli buy wéy amus lëf jafe sëriñ bay jaxat nee na ndekam réere nga lolli lee ngi nii wér ak dund ak doole lollee jafe ku sab lolli ñëw nag ba sa yëf ne xos la gën ngay ku yombul ku maasam jafe jëfal guddi jëf ba cëg ak sépp saa ba koo seeru naa kii jëfam yeera jafe sëriñ bay jaxat nee na ku def nii ci sab lolli doo jeeli yëf bu nooree te doo xaar yi yeewoo jafe sëriñ bay jaxat nee na bu dul kon ngëmee na ngëlëm koo fu gis ma ngay farlu ngir xam ne lee jëf jafe bu nit nee lasar ñépp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe sëriñ bay jaxat nee na ku jëm ci jatay romb xaalis di wéy bu yeggee di gis yëf yi tëg njëg jafe moo tax mu ne xarit dëgg ngooral ci xaalis bu yow takat léegi seerub dërëm sax jafe ngiruk mag akuk ràgg akuk dee ngi ñëw bu ñuy agsi def lëf lu bon bon jafe te defal yàlla as lëf bu mujjee jafe amus lëf ci yàllaati gën koo jafe moo tax sëñ bay jaxate nee na bu ñëpp dee daw di jëm ci teen a koy wuti ndox fëxal te da wuti baag ak goj bu wér soog a dem kon soo demee dal di duy say dab duyal ku la saf te doo fa jekki xuloo koy wax yu ñàkk xorom sëriñ bay jaxate nee na bu ñëpp dee daw di jëm ciy genti baay ak ndey dalal di jóg jëm ci buti ñëpp dee daw di jëm ci genti baay ndey dalal di jëm ci ndigal sellal ko rekk te gëm sëriñ bay jaxate nee na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 gisal morel nee ñu bépp teeru am na fa kër te kat du def ndare lekk ak sàng rekk cëram te loolu kat ñëpp a koy def ndax te koo mën a gis lum ñàkk-ñàkk di am càngaay ak ay amu ñam bu lëfu bu lëf desul ndare dee nag ñàkk fay xaw a gën ku dee ba fuk jur gudul jeex kooka ñàkk na ndam sëriñ bay jaxate nee na doylul te bul yitte woo wërsëg ba génn ndigal nit wërsëgam du ko raw wërsëg akub digayam lu ca ñëwam jotagut loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ne xas na ci ñëw loo dàq dàq du dem moo tax sëriñ bay Jaxate ne moom ci jëmmi boppam la mu wax te waxaale ko ñëpp dafa jëm ci yàlla di sant yàlla ndax sëriñ bay Jaxate dafa wax ne cant balaa wér dangay seet li la yàlla jox li nga am ak li nga ñàkk lu ca gën lu jar lu jar a xalaat la boo gisee ma di ko teelu di ci dugal yu mel noonu damaa bëgg bu ñu fi jógee kenn ku nekk xam ne bisu sëñ bay jaxate nga yendu nga am jële ci njariñ loo xam ne dalay jariñ àdduna ak àllaaxira sëriñ bay jaxate dafa wax boroomam ne ko mënoon nga maa wacc bañ maa sàkk may ku amul mënoon nga maa sàkk def ma ceddo may ku gëmul mënoon nga maa sàkk def ma luu bu sel ma xa tëx mënoon nga maa sàkk def ma rab wu dee fi fetal mënoon nga maa def ku dul tàggoo ki wopp lor mënoon nga maa def ku ñuy xañ baa la koy doya dal mënoon nga maa def ku ñuy wóoloo di koo ko joxoñ mënoon nga maa def ku ñuy suufee la koy doya dal mënoon nga maa def ku déeful dégg déefu ko gis mënoon nga maa def ku dee cab lay ñu koy saraxal jaaraama yow jëf yow yaa mënoon a dogal ci man lu kenn amulu reenam faroo ko dogal sëriñ Mbay Jaxate dafa wax ne cant gi balaa wér da ngay seet li la yàlla defal li nga am ak li nga ñàkk lan moo ca gën jaam bu ko def rek sant yàlla loolu la sëñ Mbay Jaxate di andil moo tax mu ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sowe man yilif ko ak laxasu yalwaani laa yemale ku ku dul ko bind aras xam naa ne fajti ma lëf ku man di ànd ak manit day mujj teg ma fële samay moroom a ngi nii tey jii di jekki fi man te ruugi buy rot ñu dal may weer ak ay gasali ñu ngi di jekki fi man ñuy tàppante bis aka ree te roogi buy rot ñu jóg jébbal ma yàlla mile sëriñ bay jaxate nee na koo xam ne wéttalikoo nas lëf lu dul sëriñam ak yàlla waxtu wu dee ak wéete koy lëjali bàmmee la raglu te moo lëndëm te doo fa des ak lu dul sa jëf ya nga daan jëf ay balul te bale na yàlla seede ne jéggal naa jullit bu ma moy ku dib jullit na ma jéggal ndax nu raw rawale sëñ bay jaxat nee na suñ xol yi ak sunu cër yi yépp yàlla na set ba képp kuy dee boroomam daal di fab dégali sëriñ bay jaxate nee na kuy junni toppoon itam waxul ku topp ay junni de koo xam ne junni yi ñoo la topp kuy junni toppoon itam taxtil fa dee di nuyoo nga seeru kenn ku naa man maa la koy fajali baadoole ak buurayam ay biir fa dee di nuyoo du kenn fay xala am fajkat bu ko li fajali lu dul ragal yàlla rek ak topp yàlla gu wér du faj fa dee di nuyoo lëf dëgg gaa ngi ni le sëriñ Bay Jaxate nee na la ngay gënew nit du mboolookat mu topp ci yow mbër gaa ya koy tëj koy wër taxuñu ko wubale la mbër di daanay moroomam day ne ci yaramam du nekk ci wàll yaanam yàlla xam na li le yaflul ba def wa mbër mu wecci wàll yaana ki bër te bul defit mbër mu naan ma man ku may bërele fexee la def mbër mu doyloo yàlla walifu nit bul dof ba doyloo sa bopp ak gaa yi lay fexele ngir képp kuy fexe boppam lay fexe rafetal doo taaru mukk te fëppoo yow sa jëmbu jile sëriñ bay jaxat nee na kuy sang aw yaramam lay sang sangu la yow sangal sa bopp ba nee faa kaare sang bile te doonte àdduna jëpp lay xëy jëfal bu mu tee ngay kër-këril yàlla yow faaw ak sa doole jile sëñ bay jaxat nee na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 rëy ak kañaan ak dogug bokk ak di yab ku man fopp ak di jëw ku la gën ak yab nit ak beru ko ak leb te doo xam a fay ak fecci wóllëre ak wayaani seex ak ku am aslëf nga dem gane ko ak xër ci àdduna ak sàggan ci laaxira nag ak fàtte yàlla mu rëy mii mat di fàttaliku sëriñ bay jaxate nee na la tax ña baaxoon a baaxit mat na fukki yëf ak juróom lëf xarit ndax yàlla séddunu ko mu ak ngor ak tabe ak fay bor balaa faya jot ak sàmm wëllëre ak nax nit ba xetli ko ak suufe ak wax ca suuf ak doylu ak bañ a xër ak yittewoo ndigal ak farloo ko feddli ko ak wacc lépp lu bon ak nëb ci lépp lu jub dalal di def baa nga fab say biir te jébbale ko sëriñ bay jaxate nee na ku mënta def am njariñ koo xam ne lott na yit te fab mbiram joxe aw ŋàññam rot ñu dimbale ko yow boo amee sa saxaar bopp war ca te dem njegam amoo ko joxee lus lëf te néggandiku sëriñ bay jaxate nee na yow boo amee sa saxaaru bopp war ca dem njegam amoo ko joxee lus lëf te murit ne cas fab mbiram jox sangamay la ko war du lépp luy war murit war ab sangam kañu ko amaana ngay gis lu war ci sang ci laram amaana ngay gis lu war kee te kee waru ko ku nekk ak la war bul def lu dul la war bul wàcc it la la war kuy wàcc dem jafe ko bañ a wàcc nag mooy lan fexee xam saw sa sëriñ bay Jaxate nee na yàllaa di géejug njariñ goo xam ne kenn du ko as duykat yi duy nañu bay feesal te kenn nasu ko doxkat yi jóg nañu ñii ngiy daagu ñii jamu xel ñii gaawe new saana ko sox waaye kenn jotu ko ñi lee xam tuuti ñii xam jópp ñii bañ a xam ñii ëpp faf ñëpp xam-xam waaye kenn xamu ko ñi lee ngi daj tuuti ñii daj jópp ñii bañ a daj ñii daj ba daj lu rawum xel waaye kenn daju ko sëñ bay jaxate nee na ñi lee ngi jam tuuti ñii jam jópp ñii bañ a jam ñii jam ba jam rabu ñay cëy waaye kenn jamu ko sëriñ bay jaxata nee na dellul ci saw sas te bay nag bu liggéeyee warub tool ak warum tooba lii day yàq mbay bàyyi ko toolam bi kat loo ko wër wër nag te xam ne bayoo du tax nga am dara yow luy tee nga am moyu ko toolam bi moo di bàyyi mooy fawu sax ci ndigal mucc ak njariñ fawu di añ di palit fexe ko sëñ bay jaxat ne ndekam xamoo ko ndegam gisoo ko te gis saw sas mu doy la xanaa ndekam xamoo ko te xam sa pal mu doy daggu ko ndegam gisoo ko te gis saw sas mu doy la xanaa ndegam xamoo ko te xam saw sas mu doy daggu ko sëriñ bay jaxati nee na loo xam-xamuk mooy te wëccoo mooy ga fajti la lëf loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkk a xam tane ko loo xam-xamuk moy te wëccoo mooy ga fajti la lëf loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkk a xam tane ko bàyyil lu bon jëfu yiw añ ñëw nga añ bay bay yemal ci lii nekk fi sa pal kon mu ñëw nga ti ko sëñ Mbay Jaxate nee na lu am fu muy tàmbulee kay yem la xel mën a jot lu àppuwul tàmbuleewul fenn xel jotu ko asal te farlu ku ñëw day as di as ba ne mes yóbbum ndoxam ba ko muy fellax ne kenn na su moo tax sëriñ bay Jaxate am na ndonga lum dénkoon lam ko dénkoon jullit yépp la ko dénk Momadou Kan la tudd sëriñ Mbay Jaxate ne ko man mii fasoo woon a dox yow mii nga teg ma ca kaw sëriñ bi yal na nu fab nun ñëpp teg nu ca kaw bég naa ci yow yéenalaw yiw yow mu Muhammadu Kan ndax yow danga bari yitteeku bi yar ak jëfi yiw waaye jaaraama noonu la bul tàggoo ko def lu rafet diirub li ngay dund nag sàmmal ma wax ji la yow fonkal sëriñ bile ak gaayam yi ak ndigalam koo gis mu def nii ci yoonam wi asal dana raw fonkal liggéey ak joxe jur lii di yoonu murit bul wàcc yoonu murit ngir maa ngi aw ko te daw bul toppandoo gaa ya delluy laaji seeni sëriñ ak jur di dimbandikoo liye bon te liye gën a xew sëñ bay jaxate nee na murit bu mujjee di waaxuy fab jurug sëriñam mbiram ma yàqu na dootul yokk far na taxaw moo tax sëriñ bay jaxate ne ko notal te bul notti kuy notti notam dafa dof lu metti metti muñal tey seenu wàllu gu ñëw sëriñ bay jaxate nee na nem céebool ak walla mel day teel a sébbi ci ñii di yeex a sébbi ci ñii foo seeru nag dana taw lu xitti xitti te yow mii sas mbaram ne kërës sa njort nay taaru ngay séenub tawak lu ñu naw sëriñ Mbay Jaxate nee na ak ñàkk day ndëkk sos koo seeru dox na fa wii ku muñ ñu tàggale kooku ñàkk jox ko yu lew yaakaaralug wall tey farloo ko sant ka muñ ku sang saytu sa mbir jombul nga xëy ne ca kaw moo taxoon sëriñ bay jaxate nee na murit bu yitte ja daanoo mët la waarati sax ngir jom ja jeena amul soxlaati far ci lu baax kuy waare muy mecc too koy randu lëf du ko saf lu dul ndox ak lal bu nooy ak ñam wu sell bu baax murit bu mel ni la mat nay muslu faw aka daw ngir day joxe ràgg kay wàlleeka tee a baax mat nay ragal mat di daw waxtaanam ak barabam baaxul te képp ku koy déggal du jëm ci lu baax sëriñ bay jaxat nee na boo dee wutug yegg bul wéet ak ku yitte jarot murit bu yitte jarot doo gis mu wax la lu baax ku yokki day yàqe moo tax yokki bon ku ko def du dem du nangu ku dem yow dee ko moytu bu baax sëriñ Mbay Jaxate nee na ku yokk ku yokki ab ëkk lay saf ndax du dem te ku jóg mu fel ko faw fa sowut kenn làq lu baax sëriñ bay Jaxate nee na boo dee wutug yegg bul wéet ak ku yitte jarot murit bu yitte jarot doo gis mu wax la lu baax sëriñ Mbay Jaxate nee na bul ànd mukk ak ku koo xam ne kii dana tax ngay yokk yitte di yokkum xel di yokk lu baax sëriñ bay Jaxate nee na koo xam ne kii ànd ngeenus lëf mu wàll la lëf bul ñakku yow ci ku bon ñakkul ba jar ci ku baax sëriñ bay Jaxate nee na ànd ak ku yokk ci yaw aslëf lu bon bon a gën ànd ak ku wàññi ci yow aslëf dikkal ci lu baax ku yokk ci yow yitte nag mooy koo xam ne dafa am yittey dem bokk na ci jëmm ji ñu teewal fii muy sëriñ bay Jaxate bëgg naa dem waaye bëgg demam nga la ca gën a saf xorom mooy dafa bëgg a dem te yóbbaale nit ñi lu jara bàyyi xelal lu sëriñ Ba lu ñor xaadim rasul la doon na ko wax fële mu doon kenn la sëriñ Touba ndax day ber sëriñ Touba te sëriñ Mbay Jaxate lu mu wax da koy laayil ndax sëriñ bay Jaxate daf ne du ma wax lu yàlla waxul ndax du wax lu sëriñ Touba waxut te sëriñ Touba du wax lu yàlla waxut moo tax ba muy kennal sëriñ Bamba mu ne ko béppub jullit def ma mbég ci xolam te dàkkul ma naafiq kub yéefarit sama xol na fees ak sa yëf ak sa mbég samay cër na muccit ci loo diglewul la ngay soppa kay tànn nay sax ci man te naa ciy sax faw lii laa mébét lii man tegtal yooyu moo rafetal sama njort ci képp ku ma dajal ci pénc mi rek damay jàpp ne ku yàlla tànn nga ku yàlla beral nga xel koo xam ne sii yàlla dalaa tànn ba noppi fonk la moo tax mu booy la ak sëñ bay jaxate sëñ bay jaxate lu jubul du jëm ci moom moo ko sàkku sëñ bàmba te sëñ bàmba may na ko kon nañ rafet njortu te seet nag la koy yàq la koy wàññi ak la koy yokk ndax sëriñ Mbay Jaxate dafa wax ne ku nekk foo xam ne mboolem yiw wu nekk fa am te jëm fa déeful farew yiw farlu war na la kay àdduna àdduna kër la gu ñuy sàkkoo lu nekk ka am àllaaxiraa di kërug xéewal àllaaxiraa di këyu kërug pay jëf ju yiw du fa doy yaa musle aljana jëkkug dee te biir na ku ne yaram yi wér na sunuy xol sedd ñàkkunu laf wéttal wi doy na sunuy mbir jum nu làqulu ne yaa di sëriñ yaa di baay ak ndey di faj lor yal nang fi yàgg nu faf di góo te bokk fi ne yaa di sëriñ yaa di baay ndey di faj lor yal nang fi yàgg nu faf di te bokk fi ne mëneefu laa ñàkk yaa di noo di ndox di dugub yal nan la am faw am sa cant yegg fu ne noppal nga ñépp fu nit jëm tey wataa nga fa jëm teb tontu it jëfewul yaaram bi man nga ne dana jëfati moo tax sëriñ bay jaxat ne ko banaa lépp maa ngi fi sab atte tey faxas naa lu dul yow falag naa ko yit faxas naa lu dul yow ci man mii mu rot naa ko nit ñee ba dootul ñëwit fabal nag sa bopp sa mbir def ci man te def ma muri dëgg buy sab xarit danaa wax ci yow lëf lu tax ñëpp xam ne sam kem amul soowu ak penku yit ba ngay jàpp xaalis di dëddoo ko bañ ak sànni cig dex nga raw képp nit ba ngay wéet a muñ ak dunde ñax fa yéefar ya boobee nga fab ñëpp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka mooy fi sag wet nga sut mbàkke mboolem ñu ba ngay jaamu yàllaa ka way Moustapha te kenn nekkul ak yow nga am say mébét balay carte daa wër gannaaw ak kanam te yàqul la ngay def nga raw am xelit ba kenn déggatul lëf ci yow déggatoo ci kenn lëf nga am may gu kenn foogulit ba ñuy naan a koy fóon a koy tox di saw fi sag wet nga am lool bu feeñoon ñu rët ba ñuy liit a koy maaj yi ngay jàpp yow ak ay julli boobee nga saf yàlla it ba ñuy woote ngay julli bañ wuy jiwoo ba sëlmal nga def mbégte yónneen ba it ku lay toppandoo tey ci mbir moo ko dof ndeyow doo moroomam te doo maasamit ku lay toppandoo teemu dox fii nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te koy ruuj a kay bay bu dee toppandoo kafar maa ngi ko dof ay biram yàqu it ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum nawle day alkukat da ngaa dox fa bëri yëpp dox nag te dox fa kenn mës la dox am nga jaajëf ju mat da ngaa boole waa àll ak waa kërit toroxloo te jël seeni ndam lii rafet demoo wàcc saw nit ñu bon alku far da ngaa dem te fab ñëpp yóbbaale fat dangaa man ci kër man ci ab àll it ku xam-xam ne yaa ëpp yow ñëpp fit kër ak àll ñoo bokk nag yem ci yow lu am doo ca bew doo ca jekki xulit sëriñ bay jaxat nee na xaadim rasul ku dul yow sa bët yaa nga jëm genn wet te yow nag sa bët yaa nga jëm gépp wet ku dul yow dafay may boroomam ba bët bu wér mbaa mu far may njabootam nga bët nga may yàlla yow bët te may ñëpp bët sa genn wet taxul sa wet yëpp a set ku dul yow bu geewet setee gee tilim bu geewet jotee sëkk yit gee du jot sa wet yëpp a set yow sa wet yëpp a jot bégal barakallahu sam kem amul te nongoogu faw it bi say dof yu rëy fajal yaa di fajkat te yor ay dofit doxal fawu diggante ñëpp ak tawat ba kenn dootu gis kuy jaloo koy tawat na xol yëpp far sedd biir yëpp jub bu kenn ñàkkatiw yu ba fir daw si it te mboolem ku lay topp nag dee ko won lu koy dolli ngëm ak rafet njortu it te fenkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral mbiram mam ne defal gaa yi lay topp kay sopp far ni biddiw a kiy weer a kiy jant yëpp nga far féete nag yow ci suuf ak ca kaw sa mbir rëy ci waa suuf si ak waa kawit te def nuy murit yoo defar yoo gërëm yu lay dimbalee koy bégal faw yit na ngay bég ci nun faw nuy bég ci yow nu far dund ci topp téeméeri at te sun at mu ñëw wecc téeméeri at yu ab jaamukat jaamu sellal ko yit te dàkkul nu mboolem lu jëm kon ci lor te dàkkul nu mboolem lu jëm kon ci nun ci ay tiis ak lor tey ak ëllëgit te jàppal nu mboolem lu nuy teggi kon ci ay may ak i cant ak jàmm it te baaxal te neexal te leeral wéral sa digg ak nu nit faw doylul nu it te may nu wér ak way ci loo nuy digal ci saa yëpp ngir yàlla ak yónne nit te bépp jullit def ma mbég ci xolam te dàkkul ma naa féq ku bi yéefari la ngay soppakay tànn nay sax ci man te naa ciy saxit faw lii laa mébét lu dul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal sépp soxlaa ko yoral xol bi yor cër yi yor lépp nag yëlëb naa lu dul yow ci man mi ma rot xarum nun mooy ci yow dong ak doyloo la rekk nu jik noor yaa raasi yàlla ak yónneen ba for mbégi mbég nun ñëpp yàlla na nu lay raasee ka for mbégi mbég yàllaa la jik yaanu jik ngir moo la xëpp njariñ nun yaanu xëpp njariñ jiitul ñu topp la teg yow moo la fal yaanu fal moo lay defal lala saf yaanuy defal lanu saf doo gag nuyut bu nu defal lala saf yaanuy defal lanu saf moo tax nga jekk ta yaa tax nu jekk ta jag moo saytu sa tos te yor saw xos nga saytu sunu tos ak sunu xos ku téeyul saw ratal dana tàkk koo xam ne téeyoo sawuy wuy doktil ratalit dootoo ca jot mukk lii bon yàlla yal na ko fekk yaa yegg yaa joti yaa jot yàlla yaa ca jotit nun ñëpp yal na nu lay jot jot ci yow telefon na ngay jëli cant ak lu sax di nu ko ci yow cant ak cofee la ku dikk yokkal nu digg wi ci gépp wàll guy maye ndam yokki jàmm wu ànd ak barke wu ñuy tax a teg sëñ Bàmba sëñ Mbay Jaxate nee na ko yow daa nga yokku diggum nit daa nga yokku ndiggam yokkal nu yépp ci sa baax karaama yu mat yow daa nga yokku nit daa nga yokku ndiggam yokkal ñu lépp ci sa baax ak karaama yu mag moo tax sëriñ Mbay Jaxate mu nekk waxal ma gaay yee ma naan jàngil ëroo dëkki na dex gaa ngi man duma kuy soxlaati baaga ki goj garab gi tàbbi na man maa ngi ci ron gi di for du man di yéegati bay daanoo ka damm ka toj sëriñ bay jaxat ne na waajay gis ak waaja dul gis tey awum njërëyam buy dox di seet ak a gis muy dox di làmb ka daj waxtaan bu ci mën a ñàkk muy bërëb bi ak mbir mi mu des mbër mi nu sunu borom subhaanahu wa booleel muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu Serigne Bay Jaxate mi tax nu daje fii tey moo waxoon ne ba sokku ci sàjji seeni géew ak a tëb laa xam ne làmb ji moom mbër mi ko fi uba gi muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di koo xam ne fi mu fekk jamono ak fi ko yóbbu rawatina lislaam daj na ci loo xam ne ñépp lott nañ ci te mbër ka ñu koy tuddee mooy koo xam ne la mu doon mbër def na ca loolu ñamu ko séqal mënuñu ko ci loolu nag la muy xamee ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo di mbërum lislaam bi mooy koo xam ne léppam ak féppam ak ñéppam ngir lislaam la léppam nag naqari naa peeg waaye am na lennam lu mën a représenté léppam muy mbindam lu mu bind lislaam a tax ak liggéeyal lislaam fépp neexut a peeg waaye am nag fennam foo xam ne mën naa représenter féppam muy Touba li mu daj ba jot ci Touba tax na Touba googu di fennam fi mën a représenter féppam dem na ba yegg na ci sax léegi fa ab murit ne te du Touba Touba foofu lay tudd fii nag moom day Touba ci biir Touba ndax boroom dëkk bii moo waxoon Serigne Touba ne ko Touba njariñ lu fa ne tabbal ko fàww ci nun te def nu nag nuy Touba gu réy gu ne xiim mu bokk ci barab yi nga xam ne mën naa représenter fépp Serigne Touba ñépp mit noonu la mel am na kennam koo xam ne mën naa représenter ñéppam te mooy ku mu ci moom rek Serigne Touba ku mu noppi ci moom mën naa représenté ñéppi Serigne Touba fii nu teew tey nag doy na ci firnde muy Serigne Babacar moom maam Xaadima mi nga xam ne ku ne xam na digganteem ak Serigne Touba wala ñu bari xam na digganteem ak Serigne Touba xam Serigne Touba lool. teel koo sopp lool teel a barkeelu ci moom lool yu bari jaar diggam ak Serigne Touba yoo xam ne waxtu wi du ko maye waaye ku tudd Serigne Mbaye Jaxate tudd xaalima jaxate kala huwa ala rabbil wara kala dana am lu mu wone ci diggante sëriñ Touba ak maam xaalim nuy siyaare bu baax sëriñ maam xaali jaxate mii ci jataay bi ñu faye ko maamam muy kenn ci njabootuk sëriñ Mor Saasum jaxate mi nga xam ne mooy taawu maam xaali ma jaxate kala sëriñ Mor mi nga xam ne moo jàngal seen mbay jaxate alxuraan sëñ xaali ndaw lay dalal bu baax ci dëkk bii yaag délégation bi nga àndal jóge ay numaat yi fa tabarakallahu kon loolu mooy li nga xam ne moom laa doon dindi ci jotaay bi béréb bii nu dajee ak mbir mi nu fi dajale ak mbër mi tax nu daje fi yépp mat a bàyyi xel Sëriñ Jaxate wax ne am na mbégte lool ci ni mu ko yëglee woon ak ni ko bokk yi wuy see sedd na xolam dalal na xelam te yaar yooyu am na lu ñuy waral gannaaw boo xamee ne Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des def nañu bés bi ci ndigalam ak i ñaanam ba nu xëyee ba léegi bokk yaa ngi fi ñëw bàyyi ko ci këri Serigne Touba yépp ñu ràññi ci Serigne Abibou Mbacké moom Serigne Falilou Serigne naa Mbacké moom Serigne Falilou ak seen bokk yi ñu ko seqal yépp ñu bari teew fi tey sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Fallou Mbacke Landang di mbokkum sëriñ Abdou Jaxate nii di léppam teewal fi njabootu sëriñ Moutier Mbacke gépp sëriñ Cheikh Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir mi yore kàddoog yoon wi yebal fi ndaw lu mat ndaw loo xam ne bari na fu munta dem fu ne ndax ku ne xam ne ay yitteem ak ngantam waaye am yebal fi alhaaji Buso moom sëriñ Abdou Karim moom sëriñ Banga Buso moom itam di mbokkum sëriñ bi sëriñ Abdou Roqiya Fall xalifab sëñ moo Talla Fall mi nga xam ne mooy moom maam Cheikh Ibrahima Fall mi sëriñ Tuubaa joxoon ndigal mu dëkk ak sëriñ Mbay Jaxate fii rakkam yëpp mën nañ ne teew nañ fi tey ràññee nañ fi Serigne Baye Ndam Fall sëñ Abdourahmane moom sëñ Mor Talla Fall ak soxna Mbène moom Serigne Fadilou ak Serigne Bada Fall rakkam ñoom ñëpp teew ci fi bokk na ci ñi fi teew Serigne Abdou Sylla teewal fi njabootu Serigne Madiba Sylla gépp Serigne Fallou Sylla Daraman moom itam teew na fi. ànd ak mbooloo mu bari njabootu Serigne Ibra Fari Mbàkke ci ndigalul Serigne Maam Mor Say di ab xalifaam ñoom itam teew nañ fi Serigne Aliou Mbàkke moom Serigne Abdou Fari moom itam teew na fi Serigne Mudu Lo ñoom rek Gosaas ak rakkam Serigne Basiru Lo ak mbokki ñoom rek Gosaas yépp teew nañu fii délégation Serigne Ibra Khoudia Mbakke moom sëñ Mudu Xabaan Serigne Amsatu Mbakke doomam teew na fi bokk na ci ñu fi teew Serigne Sam Mbakke moom Maam Mor Mbakke Dendey ak rakam Serigne Mudu Xari ak njaboot jëpp bokk nañu fi teew yooyu yëpp di ay délégation yoo xam ne dañuy tudd bopp yi délégation yi rek waaye li fi teew ci mbooloo neexuñoo lim ndax li ma ko waxee ci njëlbéen bi démb ba tey bokk yaa ngi ñëw sëriñ Moudou Gueye Daarul Manaan teew na fi ànd ak mbooloo mu bari ràññi nañu fii Serigne Abdou Latif Touré ak Serigne Madické Touré ñu bàyyi ko Kër Makhoudia Maram ñoom itam teew nañ fi ak délégation bu bari Serigne Ablaye Bamba Sarr bàyyi ko ndar ànd ak mbooloo bu bari moom itam ku sopp Serigne Mbaye Jaxate ku yàgg yëngu ci mbindam ku ko safoo ku dajale ay dongo yu bari xiir leen ci Serigne Mbaye Jaxate ñu di ci liggéey liggéey bu am solo ba ren bi tax bi mu ñëwee fii wane na ne am na daayira bu judd ca ndar boo xam ne soppee sëriñ Mbay Jaxate lañu tudd dafa liggéey liggéey bu am solo rawatina weeru koor wi ñu dëgmal moom itam teew na fi ànd ak mbooloo mu bari sëriñ Abdul Wahab moom sëriñ Abdou Khadir sëriñ Moustapha Mbakke moom bokk nañ fi ñu fi teew sëriñ Fallou Diop bokk ci njabootug sëriñ Masamba Diop Sane nekk fii ci tawa ak ak njabootug sëriñ Souleymane Diop ñoom ñépp teew nañu fi ñoom itam ngir yàlla aku bokk ak seen diggante ak sëriñ Abdou Diakhaté ñii fi teew tey délégation bi nga xam ne moo fi teewal administration bi te mooy li ma waxoon ci njaal benn gi li waral waxtaan bi am bu ñu nee lislaam mooy diine ak àdduna ñoo ko seq ku ne xam na ne tey bés yi bari na ak xew-xew yi ak daje yi tax na kenn ku nekk day seet fa mën a dem mu dem féete foofa waaye nag ñu tànn mbooloo moo xam ne ñoo leen teewal fii tey feggoo ak sëriñ Abdou Jaxate ñu ràññi ci sëriñ Jibril Wàdd ak sunu préfet ak sëriñ Ibrahima Sall ak suna sous-préfet Ndam ak Mor Talla Sall sous-préfet Kayal muy ñoo xam ne ñu miin dëkk bi lañu ñu xam fi ñu fekk si lañu waaye itam di ñoo xam ne li ma ko waxee bi ñu leen yónnee fii sawar nañu ñëw nañu fu ñu sawar ndax seen diggante ak ki nga xam ne moo dox seen diggante ak Sëñ Abdou Jaxate muy Sëriñ Makoddu Sow mii nga xam ne fa tabaarakallaahu leeral na lu bari seen diggante ak Sëñ Abdou Jaxate yàlla na yàgg ci barke Serigne Touba kon loolu mooy bokk yi nga xam ne teew nañu fi nu war a jublu ci waxtaan wi kii tax nu daje fi di Serigne Mbaye Jaxate radiyallahu anhu yàgg naay wax ne ku ko waxtaane waxtaane nga lislaam ku ko waxtaane waxtaane nga ak bokk ku ko waxtaane waxtaane nga xam-xam ku ko waxtaane waxtaane nga jikko yu rafet ndax foofu rek la nekkoon yàlla dogal muy mbokkam ñu baax ñépp ndax mbaakool ak piir ñoo ko seq muy mbokkum ñépp lépp mi itam mu jeexal ko ci lislaam moo tax ku ko waxtaane waxtaane lislaam mu bokk ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Tuubaa ni nga xam ne sëriñ Tuubaa ko yëkkati woon teg ko ci loxol sëriñ Bay Jaxate am lu mu ko ci dig am lu mu ko ca wax sunu borom tawféexal sëriñ Bay ba mu am bëggub sëriñ Tuubaa googee ci sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Basiiru Mbàkke moomu li mu seede ci sëñ Bay Jaxate doy na waxtaan ci sëñ Bay Jaxate sëriñ Basiiru dafa wax ne buy tudd sëriñ Bay danaan sama aji yar kon mooy wane ne Serigne Mbaye Jaxate moo ko yar moom moo koy waxee noonu sama aji yar Serigne Babacar Jaxate mu wax ne bokk na ci murit yi gën a dëggu ci sopp dëgg bokk na ci murit yi gën a teeng ak sàmm bokk na ci murit yi gën a jub aw yoon bokk na ci murit yi gën a xej ci jamono yi sëriñ bi nekk yooyu nag lenn lu ci nekk la koy maye mëni su ko développé fii ci jataay bi waaye day wane ne moom résumé na sëñ Mbay Jaxate mooy kan ndax noonu rek la sëñ Tuubaa bëggan ku ni loolu it moo taxan bi sëñ Tuubaa bëggee ñëw fii mu doyloo ko indi ko fii ngir mu dekkalaat dëkk bi ba dëkk bi mel ni mu mel tey njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekk njabootu boppam ak lenn ci ay setam ndax fukki doom ak bennam yi fi nekk ñeenti doomi sëriñ Baara Mbàkkeem sëriñ Tuubaa ñi ngi fi jenn doomi sëriñ ba Basiru Mbàkke mi ngi fi ak rakkam jii di sëriñ Abibullahi muy barab boo xam ne bari na luy xew ci yoon wi te fii la xewee bari na yuy nekk li ci yoon wi te fii la xewe lépp rek waaye moom noonu mu ñaanan boroomam sëriñ tubaa def ko muy Tuubaa gu rëy gu ne xiin loolu mooy li fi nekk sëriñ ba yàlla nañ ko yàlla fayal ku jariñal yàlla bindeef yi la ku liggéeyal lislaam la la ca dàqati nag moo di loolu da ko yar ci ak njabootam la ko tàmbale ci sëriñ Abdou Jaxate mi nga xam ne moo ko njëkk a wuutu fii 1948 ba 1974 ci loolu la ko yar mu nekk fekki rakkam ak njabootam defaat ci ñoom loolu sëriñ Muudu mi ko wóotu 1974 ba 2005 ci loolu la fi nekkoon ànd njaboot gi sëriñ Moustapha mi nga xam ne fa tabaarakallaahu moom la nu mujj a gis ci njabootu sëñ Mbay ci góor mu nekk fi 2005 ba mii bii mun woonee ginnaaw ci loolee sëñ Mbay Jaxate nekkoon magam yu baax yi nekk ca ca la nekkoon bàyyi ko ci njaboot gi yàlla na leen yàlla fay ci barke Serigne Touba Serigne Abdou mi fi nekk tey itam nu di ko xoole maamam ak way juróom yooyee yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te kàttanal ko ndax li nu jàng ci Serigne Mbaye seede ko ci way jur yi loolu rek leen gis ci moom yàlla na yàgg ci barke Serigne Touba kon ni may def mooy jox kàddu gi sëriñ Xaadim ma jaxate kala ni ñu feye maamam mu am kat moom itam mu jël kàddu mën naa ne mu dalal gan ñi ndax dëkk bi ab dëkk ma fa tabaarakallaahu ak kàddu yi nga xam ne war na koo wax bu ko defee nu gën a xamaat bu baax jëmm ji nga xam ne moo tax nu daje fii tey ak bokkam yu baax yooye nga xam ne ñoo bàyyi ko ca ay numaat yi ñëw fii tey di ay bokk yu xam li ñu bokk sëriñ bii ci bëccëg dégg naa muy sàkkulu ñaan ci sëñ Ousmane Jaxate ndax yéene ji ma am ci bokk gi nu ñaan yàlla kàttanal ko ba mu àggale ko ndax bu àggee rek ni nu ko bëggee woon lépp dana am ak bokk dañ koy bokk ndax jëf yàlla la kon nu jox kàddu gi sëriñ xaal